présenté, je m'appelle Yael Fatou. Sànqlaa nu seetaan seen vidéo bi question bi nga doon laaj no si diggante Biram ak Dior mais je pense que sentiment commencé na am ndax Dior lu mu waxoon ak xaritam bi buñ nekkee woon si boîte bi noonu moo tax. asalaamaaleykum dëgg sa waat naa série bi moom wax dëgg yàlla macha allah série bi moom luñ koy siivan ñu si jàng lu bari. biram diggante biram ak joor moom ngay wax joor ak biram dañ bëggante parce que fi mu ne nii biram dafa doon góor goo xamante ne moom dafa doy waar man moom ko saf xorom la moom <laughs> ko saf xorom la mais joor fi mu toll nii mbëggeel duggase na ak moom moom xam naa biram moo jëkk a kii wande joor moom bëgg na foofu moom ngoro dafay dem rakki paa bi la ah si lu ñu foog papam la parce que paa bi mu ngi koy topp ba bunt bi ni mu doon ni muy amee yërmande moom mais moom xamul paa bi mais yërmande gi muy doxal si paa deret dafa foor daal deret daf foor deret daf foor Marème moom ay waxam dama ko tegee côté man Marème moom ko orosu la Marème bu ko maire bi dàqul woon musiba am bu dugg si woon euh, laal la mën nay kii xelam mën nay kii at kii na yem Marème na yem na réglé ba laal la tane bu koy seeti mu seeti ko këram am na yoo xamante ne li nga wax rek parce que famille nga jege sa famille dafa baax parce que li dañ lay digal loo xamante ne du famille du la digal lu bon du la wax dara lu bon xaritam bi mu ngi wax ak moom mais terewul famille dafa doon loo xamante ne duñu la dugal si bon si yoonu jub rek mareem bu nekkoon ku jub day dem si wati famem toog fa toog si famem bu fekkonte ne lii mu ngi xewal seen kër si fameem duñ ko bàyyi mu ñëw duñ ko bàyyi mu ñëw balay ñëw si euh, Lalla dinañ dinañ bàyyi ba Lalla tane ña soog a ebal Marème mu dem seeti ka mais ki feebar yow tamit li li ko dal si yow la jóge nga bëgg a koy seetu loolu tamit indil nit ki problème la góor ñi nañ réglé góor ñi ñoo war a réglé réglé leen ah asalaamaaleykum wa rahmatullahi maa ngi suivre la maîtresse d'un homme marié man sama dégg-dégg ak sama gis-gis déjà li nga ni Marème ak Seex boo ñu war a sëy parce que déjà sëy bi gënul ci ñoom si sëy bi gën na ci moom parce que déjà benn laal xam na ni Seex mi ngi doon doxal Marème te fin wi ñëwoon na ko dama ko bëgg dinaa ko takk takk na ko laal la indi na kaw fiiraange xam nga léegi Cheikh nekk na ci situation yu xaw a difficile mais ba léegi xolam mu ngi bëgg Marème bu fekkoon ne bëgg ko daf ko takk wala intérêt wala dara wala si wala leneen mais ñoom ñaar dañu bëggante depuis zil bi commencé ba léegi man loolu laa gisee bu ni sëy bi gënul ci ñoom parce que Marème comprendre na Cheikh mi ngi koy toloore loolu mooy sama xalaat. deuxième bi mooy que hôpital moom waru fa woon dem di seeti kii di seeti laal la parce que problème bi mooy Marème xol bi moo rafet nag ndeysaan bëgg jàmm rek la indi tax mu dem di ko seeti pour xool ba xam mi ngi ci jàmm loolu la xam nga bisa nekk ci ay situation lépp amul woon jàmm parce que bëgg na ko gis xamu ci lu mu nekk waroon na ko woo xam nga xamal ko la xew mais bi mu ko gisee bi ñu waxtaanee comprendre na xam nga jëm na def wàllu loolam ci seex sëy beeg yooyu noonu xam nga man en tout cas Marème laa faral xam nga mais nag ah waaw dañ xaw a waar tamit de dañu fiir laa la leen fi def yëpp saaga na fi sax seek loolu wax na ko ko mais nag na waar daal mi ngi dama bëggoon participer. si épisode 30 bi euh, si diggante Jali Jalika ak kii Dior man diggante bi la mag Dior euh, kay waru leen bett na boo xalaatee si problème mu Jalika bi ba Dior di ko jël si noonu muy dem gisoo ba excès euh, si photo bi nu mu def photo bi jënd photo bi raay ko boobu rek man daf ma jox leen am na lu ñu sekk avant ba pare bëggul bàyyi copine am si si sëy bi léegi jigéen ñi ñoo war a yeewu nga tay ji chaque jour ku leen naan di divorcé wala demar demaat tay ba fu ñu jëm après suite bi mooy di nga ko dégg ak jëkkëram wala nga dégg leneen si moom ak jëkkëram moo tax sax li nga wax rek sànq laay dëgg tey am na yenn problème yoo xam ne danga siy toll yow jëlal sa bopp say responsable du nit moo la koy wax du nit moo leen naan defal lii wala defal laa yow yaay xool lu la doy nga def ko ku si war a jot tamit mu jot si xam nga àdduna bi rek léegi moom bul comprendre lu fi am lépp kenn mënu koo wax. waaw salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di ziar bu wér a wér di leen baalu àq bu baax si weeru koor gi xam di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di leen wax ne vraiment je suis très content. et aussi je très fier pour partager ak yéen aussi am si audio yi waaw defe naa ne audio boobu maa ko dugaloon si côté Racky ak euh, pa boobu di nekk chantier ma partager ko woon ak yéen parce que defe naa ne booy suivre benn affaire en fait di nga si am loo loo jàng en fait di nga am loo jàng tuuti toujours may hésité waat di delluwaat fa mu waxoon rek di leen wax ne côté rakk ak euh, pa boobu di nekk chantier te parce bu ngeen xoolee épisode 30 tey mm, fi ne na wala wane na wane na tamit ba tey papaam la te man ba fur et fi may gëm tamit ba li may gëm mu nekk si man euh, loolu laa gëm. loolaa gëm ne papaam la parce que su ngeen xoolee ay épisode yu passé si ginnaaw Racky mu ngi koy wax médecin bi xam nga xamul papaam en fait donc loolu kan mooy papaam tamit loolu bon daf ñuy jaaxal ñun ñi koy seetaan mais nag soo jàngatee euh, si ñun ni ñu yaree si olof bon deret Euh, deret du fen olof noonu la koy waxee deret du fen seulement deret du fen mooy que deret su gisee mu mbokk rek wala mbokk su gisee mbokkaam rek dafa am lu muy sentir dafa am yëg-yëg bi te si côté euh, parent muy waajuru góor wuy waajuru jigéen su gisee doom dafa am leneen muy yëg si biir xolam donc toogul ba tey mu ngi firnde ne bon loolu mooy dëgg man nag dinaa partager sama tur un peu sax ngeen comprendre parce que voilà da siy rafet tamit ma wax sama tur man Ibrahima Sarr ra tudd Ibrahima Sarr laa tudd comprends donc man toujours may hésité rek di wax ne Racky kooku papam la ba fi ñuy mujjee papam la encore may wax si côté Biram ak euh, xaritam boobu. foofu ma fay wax ne ndaxam xaritoo mook si dugal ku jigéen ki comprend defe naa mooy joor ndaxam xaritoo mook si dugal joor xaritoo mook si dugal mais joor dem na ba si biir sentir mbëggee ko parce que boo dégloo tey si épisode trent mu ngi koy wax xaritam mu ngi koy wax ni ma dugg naa si yoo xamante ni Euh, jàppale rek moom si dugaloon mais xaw ma yoon moom si na fekk def naa comprend donc foogu mbëggeel am na fa te biram mbëggeel bi am si joor daf ko fekkise mais biram caacaay gi ko dugal si loolu question de caacaay moo si dugal biram c'est juste que pour am benn euh, affaire bu mu dund ak euh, joor loolu moo si intéressé yow moo si dugal parce que day xemmem xemmem nga wax mën a tuddee mooy que xelam day nekk si nit mu am pour envie def si dara daf koy jaral bu siy perte som benn bi si xaalis wala somme benn bi si pertement sax da koy def góor moo mel noonu comprend ñëpp ay góor la ñu xamante nañ bu baax donc fu tout temps foogu dama naan joor dafa dem ba si biir mbëggeel commencé ko si dab waxu ko nag mais moo nekk mais biiram moom loogu moo ko fa andi pexem caacaay moo si andi te voilà boo seetloo bi mu kay andi coob bi si suba booba joor na kaan na xaar ñu defar reer ñu ndeki en fait gis nga matto bi mu matto foofu en fait kon donc toujours foogu boo xoolee boo xool tamit moom loolu moo si dugal comprend euh, ñu ñëw si côté. Euh, Jalika mooy li may wax toujours si Jalika rek gis na Jalika nekk na nit boo xamante ni dafa dafa dafa dafa dëggu te loolu dafa xaw a jafe si jigéen ñi léegi ku direct seulement boo direct ñii ne dafa soof dafa rii dafa lii dafa nii dafa nii or que moom dafa am ay droit am di ko défendre tout temps moo tax mu dëgg fi mu dëgg gis nga li mu wax Cheikh donc Cheikh def ko fen moom pourtant xamoon na ne Jalika ak euh, kële ay xarit lañu mais daf ko nëbb dëgg gi kon donc amatul sens mu koy expliquer pour muy dem di jubóowee ak moom parce que lépp si moom la lépp si moom la mais nag bu ngeen fàttee bu ngeen fàtte Lalla Lalla toujours day leen bàyyi xel si Lalla Lalla mu ngi si rôle bi mu newoon ba léegi nag seulement euh, dañu comprendre mais Lalla mu ngi si parce que boo ngeen seetloo épisode vingt neuf imagine toi nit ku feebar ñu ne dafa tàggoo ak sagom malade comprendre problème xel mu war a mën a yor téléphone di ci wax wara di déglu loo xamante ne moom daf koy gën a gaañ loolu amul fen comprendre parce que déjà gis ngeen fi mu expliqué ak copine bi et tout xaritam donc laala mu nga fa mu ne woon bu léegi peut-être ñenn ñi ñoo xamul wala wanaguñu ñu occasion bu ñu mën a taxaw ne Ralla da doon def daf lu parce que loolu dafa yomb si film ñu di ko wan dafa yomb si film comprends dafa yomb si film ñu lay expliquer ne kii dafa doon daf daf lu wooyu dafa doon lii mais nag boo leen xoolee ba xool Lalla mu nga fam ne woon ba léegi mais nag c'est juste que partager ko ak ñëpp bon ñu partager waxtaan xam nga parce que bari na ay nit ñu si nekk donc euh, pour waxtaan ah pour waxtaan et nag Mm, nañu bàyyi xel bu baax si côté boobu xam nga rakk yi nañu bàyyi xel bu baax si rakk yi parce que rakk yi voilà kaam dafa xaw a compliqué dafa xaw a boo ko dul seetu tamit doo comprendre bu bari